وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk ñu ngi ñaan sun boroom subhanahu wa taala daje bi mu ñu dajale ci néegam bi yàlla nañu dajale ci yërmandeem ak njéggalam di dalal it mbokk yi nga xam ni ñoom ñooy déglu waxtaan bi ci situ xam sa diine bi ñi ngi leen di ñaanal ñoom ak ña nga xam ne dañuy seetaan sunna tv yépp yàlla subhanahu wa taala boola ñu ak ñoom ci ñoñi alquran waaye defal leen même bu dee seen jëmm teewul ci néegu yàlla bi yàlla boola leen ca ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon bégal ña nga xam ne seen xol ya ma nga aju ci néegu yàlla ba kon incha allah ñi ngi jël juróom-benneelu aay ca suratu zumar
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبروم سبحانه وتعالى مني xalaqakum min nafsin waahida moo leen bind jële leen ci benn bakkan summa jacala minha zawjaha gannaa ba mu def jële ca bakkan boobu soxnaam sa wa anzala lakum min al an'aami samaaniyata azwaaj mu wàcce ñeen leen ci jurub kër gi la nga xam ne mooy juróom ñetti peer yaxluqukum fi butuuni ummahaatikum mooy ka leen di bind ci seen biiru yaaya xalqan min baadi xalq bindin ci gannaaw bindin fi zulumaatin salaas ci ñetti lëndëm daalikum allahu rabbukum kooku nekk na ñeen leen mooy yàlla ñi seen boroom lahul mulk mboole mi nguur moo ko moom laa ilaha illaa hu kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom fa annaa tusrafoon mu fan ngeen mën a dëppi bay jaamu leneen lu dul yàlla in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum su ngeen weddee day xam leen ne yàlla ku woom leen la ci yéen wala yarda li ibaadihi al kufr du gërëm mukk ñeel ay jaamam nag ak weddi wa in tashkuru yardahu lakum ammaa nag su ngeen sante loolu moom dana ko gërëm ñeel leen wala taziru waziratun wizra uxra du yenu mukk aji yenukat lii di yenu keneen ku dul moom summa ila rabbikum marji'ukum gannaaw ba ca seen borom yàlla mooy seen delluwaay fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluun mu xabaara leen ci lépp li ngeen nekkoon di ko jëf innahu alimun bi zaati sudur moom day mooy ki nga xam ne moo xam la nekk ci biir dënn ya mi ngi noonu mbokk gis nañu sunu boroom yàlla bi ñu mujjee sunu tafsir bi paase ci jeexitulu suratu saad boroom baa ngi wax nam bindee sunu baay aadama te mooy mi ngi ko bind ci ban sant malaaka yi ñu sujuutal ko bam des iblis bala cay xew xam ngeen ko gannaaw loolu aadama boobu sunu borom mu ne yéen tamit maa ngi leen binde ci benn bakkan ba nga xam ne ca bakkan boobu laa génnee soxnaam sa te sunu borom yàlla dafa bind sunu bay aadama gannaaw ba jël ci benn paaram bind ca sunu yaay Hawa génne ñu ca mooy ñun africain yi ak sunu ñuulaay chinois ya ak seen joonaay occidentaux yaak seeni weexaay indien yaak seen xonqaay ak doomu aadama yi ni ñu wuutee ci làmmiñ ak i raas sunu borom yàlla mu ne yéen ñépp ci benn bakkan ngeen jóge mu aadama alayhi salaam loolu ci kàttanam la mu def ñu indi ñu ci kaw suuf wërsëgal ñu ay bàyyima yoo xam ne nee na moo ko wàcce ci kaw suuf ci kattanam an am yooyu nekk juróom-ñetti peer koy wax surat an am wa min addani isnayn wa min alma'zi isnayn wa min albaqri isnayn wa min alibli isnayn te mooy ñaari xar góor ak jigéen ñaari bëy bu góor ak jigéen ñaari nag bu góor ak jigéen ñaari giléem bu góor ak jigéen lii nga xam ne foo dem ci àdduna bi gis doomu aadama yi ñi ngi ko moom ñu nekk ci kër gi déggal leen ñu mel ne seenu njaboot mu uta loolu ak gaynde yàgg kéwél yàgg kaza wa kaza jur googu ñoom ngay bàyyi ñu dem fari bam yàgg ñëw ni bisil la suñu borom tëral ci zakat buñ koy jaamoo yàlla tëral ci ay diya yu ñuy tuube ci moom bu dee def nañ ak njombe tëral ci la nga xam ne mooy udhiya ya ñuy rey ci aj makka wala la ñuy ngénte wala la ñuy ci ñeenti yooyu loolu xéewal ak borom bi la subhanahu wa taala mu ne nag ay yéen doomu aadama yi fàttaliku leen yéen ñépp maa leen bind ci seen biiru yaay yi bindin gannaaw bindin te di ngeen ko yàgg dégge ñiy tuddee tey monde scientifique ba baa ci dix-neuvième siècle dañoo jàppoon ne doomu aadama day jóge ci bi ci baayam nekk lu tuuti lu bët munte gis ba demee ci biiru yaayam nag fa lay màgge ba nekk doomu aadama gannaaw ba la scientifique yi doo ko gis ne demewut noonu doomu aadama ay psychophase lay jaar avant muy nekk doomu aadama ñu ngi leen fi doon wax benn professeur bu ñuy wax Keith Moore di benn allemand gis nañu ni amoon na prix Nobel sax ci wàllu embryologie daa wëlbatiku booba yéeféer la indi ay raisonnement scientifique am nan la doomu aadama di cosaanoo ba mu demee ba jàng alquran dafa yéemu tuub dugg ci lislaam jël téere ba tuubal téere ba te mooy fu mu waxoon ne découverte scientifique la mu ne waaye alquran waxoon ne ko quatorze siècle lu jiitu loolu loolu mbokk di kawtéef kon sunu borom mu ne maa leen bind gannaaw ñetti lëndam la nga xam ni mooy albatn wal rahim wal machima tubaab yi di ko wax ventre soxna seeg matrice beeg placenta bi nga xam ne doomu aadama fa mu nekk soo ko bëggoon a jot ci biiru yaayam da nga xotti trois tissus doo ko yegg ci moom léegi nag doomu aadama génn na ko ñaata doomu aadama ñu nekk ci kaw suuf tubaab yi ci seeni wax nee nañ am nañ sept milliards de voisins loolu la ñuy wax day sept milliards de voisins yooyu nañu xool penku ba sow ndax mën nga fee génn ñaari nit ñu nuroo abadan ñaari nit ñoo xam ne kenn mun leen a xàmmee ci dara abadan kon doomu aadama ku nekk ci ñun yàlla def na ci moom signature spéciale ci kanamam ci jëmmam ci kaddoom wallahi tey ji boo taaloon rajo bi dégg imam Aboubacar Sall ñun ñëpp ñu ne imam Aboubacar Sall mi ngi noonu am déet beneen kaddu bu mel ne moom amul mën na nag nuroo waaye nekk benn abadan ku nekk ci ñun am nga sa kaddu bopp am nga sa melokaanu bopp sunu borom ma ngi la bind ci gannaaw ñetti lëndëm koo xam ne kenn yëgu fa ku dul moom moo tax nag mu ne ay yéen nit ñi am xel kii mooy yàlla mi seen borom bu dee yéeféri dañ naan axakay nangu nañu sunu borom ne kon laa ilaha illa hu kon yooyuwul ñu jaamu keneen ku dul moom su boobaa borom xel yi ñoom dañ naan axakay yàlla am déet waaye daf yi moom du tee ñu naan suñ du amul morom ak kaza wa kaza allah subhanahu wa taala huwa alxaaliq moom kese moom dong nga bind moom dong moom kon moom dong yooyu ñu koy jaamu jaamu mooy lan wër ñu yaakaar ku dul moom waruñu ragal kudul moom waruñu sukkiku kudul moom ci àdduna ak alaxira fan ngeen wëlbatikoo bay jaamu leneen ludul yàlla te bu amoon keneen kudul yàlla kon asamaan ak suuf dana jaxasoo borom boobu subhanahu wa taala nag ni su dee da ngeen maa weddi man day oomle naa ci yéen te ñëw na ci xadisul qudus yi sunu yonente salallahu alayhi wa sallam ne seen borom yàlla day nee na ay yéen doomu aadama yi bu doon yéen ak jinne yépp da ngeen àndoon bokk benn xoolu kuy gën ci yéen yokkul ci sama ngóor gi dara bu doon da ngeen ànd nekk ci xoolu ku yées ci yéen wàññiwul sama ngóor dara kon allah huwa alxani moom soxlawuñu allahuma nag lu dul nee na du gërëmal doomu aadama yi ak kéefér laa yar dal ko doonte ne yéefir yi ci seen cànkute liñ doon wax moo di ne kéefér gii ñu fekk suñuy baay fekk suñuy maam law sha allahu ma abadna min dunihi min shay bu neexoon yàlla duñ jàmm keneen ku dul moom maadaama yàlla seetaan na ko suñuy baay suñuy maam yàlla da koo gërëm gaa yi ndax loolu lay la wallahi loolu du lay am na koy woote ne maamam yonent bu yàlla la ba ñuy def seen centième anniversaire bi mu ne gaa yi xam ngeen ne fenn du am téeméeri at xanaa xamul ne la ko fi jiitu ci communisme jiitu ko fi ci laïcité moo jiitu loolu lépp ci ëpp na téeméeri at xanaa xamul ne seytaane ma fekkoon sunu maam ba ñuy bind maam aadama am na lépp téeméeri at kon loolu du lay ay lay mooy li ngay jaamu yàlla ndax am na dalil yéefar yi doon lañ doon wax lii ñu yàgg suñu maam yi yàgg ci daa soobu yàlla waaye bu soobu loon yàlla doo am sunu borom mu ne déedéet laa yarda li ibaadihi al-kufr amma nag wa in tashkuru yardahu lakum su ngeen ko santee dana ko gërëm njëlbeenu sant yàlla mooy jaamu ko bañ ko bokkaaleeg dara nangu ne mboole mi xéewal ci moom la jóge xéewal yooyu nga teg ko fa yàlla lii mooy sant yàlla sunu borom yàlla mu ne mi ngi noonu am na it ñeneen ñu jàpp ne doomu aadama yi mën nañoo yenu leen ci ay bakkaar sunu borom mu ne déedéet laa taziru waaziratun wizra uxra doomu aadama yéppay gàddu bakkaar yowmal qiyaama nag kenn du fa gàddu bakkaaru kenn ku nekk la nga liggéey yaay responsable kenn nu du la ko yenul yonent bi alayhi salaam wax na sahaaba yi mu ne attention ay waay na ngeen rafetal seen diggante seen borom bu kenn dajeeg man yowmal qiyaama gàddu aw nag naan yaa muhammad yaa muhammad yeneen dajeeg man yowmal xam gàddu terrain naan yaa muhammad yaa muhammad ba xam ngeen loolu yonent bi alei salaam nee na boo sàccee suufu jaambur même lu toll ne chibra daañ ko bëtt ba juróom-ñaari suuf wékk lu ko yowmal qiyaama mu ni ala hël ba laxtu ndax jottali naa kon kenn du gàddul kenn bakkaar naka noonu it kenn du may kenn benn xasana yowmal qiyaama borom boobu nag mu ne ci moom ngeen di dellu su boobaa dana leen xabaare lépp li nga xam ne yéen a ngi ko doon def ci kaw suuf ca du ne ci seeni jëf rek la leen di àtte waaye di leen àtte seeni jëf àtte leen ci seeni yéene ñu ngi noonu looloo tax yonent bi alei salaam ne ñaar ña nga daje ne di xeex kenn ki rey moroom ba te ñoom ñaar ñëpp sawara lañ jëm saxaaba yi na ko lu waral loolu lu tax kii moom rey dem sawara jaaxu lañu mais ki ñuy rey ba pare muy dem sawara mu ne loolu kaana xarisan ala qatli ak axihi daa xirun ci rey mbokkam léegi ne yéene boobu la ko yàlla fay looloo taxit nañuy góorgóorlu rafetal suñuy jëf waaye rafetal suñuy yéene jéem a bëgg lu baax bañ lu bon ngiree loolee mag ñu jural ak texe yàlla na yàlla wërsëgal ñu texe
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
sun borom subhanahu wa ta'ala mu ne, Wa iza massal insana burro, su dee dafa laal doomu aadama aw lor, da'a rabbahu muniban ilayhi, ma ngay woo boroomam di jëng di jëm ca moom, thumma iza xawwalahu nicmatan minhu, waaye bu wëlbatikoo jox ko xiiwal gu bawoo ca moom, nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu. mu fàtte lam nekkoon di ca woo jëme ca lu jiitu wa ja'ala lillahi andaadan li yudilla an sabili muy defal yàlla nag ay maroom ngiree mu sànke ci yoonu yàlla woowee qul tamattac bi kufrika qalila neel bànneexul ci sa kéefér gi tuuti innaka min ashaabi naar yow bokk nga ci ñoñi sawara amman huwa qaanitun aanaa alleyl amoon na ki nga xam ne dafay doon aji toroxlu ca biir waxtu guddi ya saajidan wa qaa'ima ma ngay sujuud ma ngay taxaw yaxdarul aaxira di fuglu allaaxira di ragal la fa nekk wa yarju raxmata rabbi waaye di yaakaar yërmaande boroomam qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina la yaalamuun amoon ndax dana yem ñi nga xam ne dañoo xam ak ñi nga xam ne xamuñu innama yatazakkaru ulul albaab dana nekk di fàttaliku ña nga xam ne ñooy borom xel yu mag ya ay al uqulu zakiya ña nga xam ne seen xol ya mën naa wattu ak dëgg qul yaa ibaadi lazina amanu neen ay yéen samay jaam yi nga xam ne da ngeen a gëm ittaqu rabbakum ay waay ragal leen seen borom li lazina ahsanu fi hadihi dunya xasana dana ñeel ña nga xam ne dañuy rafetal ci dundug àdduna gi la nga xam ne mooy lu rafet lu baax te mooy aljanna wa ardullahi waasi'a amma suufas yàlla si moom lu yaala innama yuwaffa saabiruuna ajrahum bi xayri xisaab dees na matalal munkat ya seeni pay ci lu àndul ak benn réglé ñi ngi noonu mbokk sunu boroom ay wax nan la yéefir mel ak bokkaalikat num mel yéefir nam mel mooy su dee lor moo dal ci kawam day woo yàlla ban koo bokkaalik dara te mbokk loolu yéefir yi jëkk yi noonu lañ meloon yaakaar naa dégg ngeen benn du ñaar la tuubla woon ikrama ibnu abi jahl xeex na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jege ñaar fukki at yonent bi ñëw na di tijji màkka mu daw yéeg géej ba demee ba diggi géej seen gaal di waaj a suux mag ñi nga xam ne ñoo ko yoroon daa ji ne bu kenn woo keneen ku dul yàlla su ngeen woowe keneen ku dul yàlla rek gaal gi dina su ñu yëkkati seen loxo ñoom ñëpp yaa rabb yaa rabb tale ikrima ne mais ñun lii rek moo ñu jotaleeg muhammad ndax moom daal ñëw ne yàlla rek dañu war a woo mu ne ay yàlla soo ma musalee tey ba labu ma danaa dem ba ci muhammad ma jaayanteeg moom yàlla musal ko labul loolu moo ñëw moo ko dugal ci biir lislaam te it mbokk yàlla jubal ku ko neex te moo koy jubalu num ko neexe yonent bi nekk nag moom màkk fukki at mu koy xeex mu dem madina mu koy xeex mais gis nga fa yàlla jaarale jubam nga yàlla yàlla jubal ñu loolu nag mbokk da ngay gis ni li ëpp ci doomu aadama yi tey jii sunu maam yi dañu naan kéefér ga woon moo tane diine tey ji kéefér ga woon moo tane diine tey ji dañu wax kii boo demee Rashid Rida ci téeram bu mu wax manaar mu facebook benn ay gaa yu nekkoon ci benn bato di dem di aji ji màkka xanaa mën nañ jàpp ñu baax lañ de ñu dem ba diggi géej géej gi ne jayyi jayyi bato bi waaj a suux gaa yi yaa cheikh diw yaa cheikh diw yaa cheikh benn borom xam-xam bu fa nekkoon daal dina yaa rabb labalal bato bi dégg nga ñëpp tourné di ko xool mu ne yàlla labal leen ñi yéefiri sax ñu leen gën ndax yéefiri buñ mosaan jàq yow rek la ñuy woo te la gaa yi seen xel doog a dellu si waat ñu xam ne ndekete yàlla rek la ñu war a woo gis ngeen suñu borom yàlla musalle waaye li metti tey jii yàlla bu ñu yàlla nattoo ak accident waaye laajal ñi mës a def accident ñëpp da xool keroog bi kaar bi bëgg a këpp ci croisement jom ñaan keroog ba muy këpp ci yoonu póot cinquante personnes ñi ci nekkoon kan lañ doon woo ana ñaata ñoo ca wax subhanallah ana ñaata ñu ca wax ya allah ana ñaata ñoo ca wax nag yaa cheikh diw yaa sëriñ diw yaa nangam diw ila axiri ala kulli xaal mbokk mandarga yéefér yi bu njëkk may su ma saan metti ñu woo yàllay kese yàlla nag nee na su ma ñëwee ak samay xéewal may leen samay xéewal ñu fàtte yàlla mañ doon woo commencé nag di bokkaale ak seen boroom utal ko ay ndend sunu mbokk ba mag ba Ibou Sakho yàlla na ko yàlla yërëm daana wax loolu da ngay gis gaa yi dem géej di napp seen mbokk lépp yi muy wax nee na buñ demee gaal ngay waaje tuuru ñoom ñëpp seen xel dem ci yàlla nee na buñ dee ba yàlla musaleen ba ñëw tefes nag ku ne làmb sa ndigg na ma ah bay diw ne bay diw ne woon na ma galen bi tànk yaa ngi ko takk dool ab géej waaw ba mu nekk biir géej fàtte na galen ba ala kulli xaal commencé di wutal yàlla ay ndend sunu borom nee na ngiree mu sànq nit ñi ci yoonu yàlla te boppam lay jëkk a sànq te xam ngeen ni bokk na ci gën a mën a sànke mooy koo xam ne dafa yor ay xéewal gis ngeen ci suñu rajo beeg télévision bi benn waay bu taxaw bàkku ay junni junni xale wër ko mu naan dàll yi ma sol xam ngeen ñaata lay jara kaale gi ñaata lay jara wata bi ñaata lay jara boo ko defee xale yu topp lool dañ jàpp ne kii kat yàlla nga ànd ak moom am déet ndax ki nekk ci coono mun te wootee ak may waaye yow mi nekk ci xéewal yaa mën a réeral doomu aadama yi su ko defee mbokk loolu sunu borom yàlla mu ne bànneexul ci sa kéefér gi xalilan xalil même bu doon téeméeri at lu néew la am déet bis boo dee dee mel ni musa fee nekk innaka min ashabi nnar te mooy képp koo jàpp ne xéewal yam yor ci keneen la jóge ku dul yàlla huwa min ashabi nnar loole ngeen bañ ci am benn sikk allahuma lu dul yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ko mu tuub avant muy dee borom boobu nag subhanahu wa taala wëlbatiku di wane jaam mi ni ñu wuute mu ne xoolal jaam bi nga xam ne mi ngi bàyyi ba guddi mu bàyyi ab lalam dem taxaw di jàng tiira borom bi di sujuut lii lépp mi ngi ci ànd ak ragal keroog ba muy dem àllaaxira xoolal mbokk ndax ki bàyyi ba xaaju guddi mu jóg di naafila ñeme ngaa laaj ndax julli na farataam déet laa ku mel noonu julli na farat allahuma lu dul lenn ñoo xam ne cheytaane nax na leen ba dañu ne ñoom duñ julli farata waaye mën nañu naafila yaa axi naafila balaa am njëriñ nga def farata ala kulli xaal suñ borom mu ni ku mel noonu ma nga taxaw ci xaaju guddi daa di taxaw di jàng téere borom bi ragal alaxira xam ne man kat lu ma nar a def ci lu baax ak lu bon mi ngi may xaar résultat ba lan la xamaguma ko lan la xamaguma ko mboolem élèves yi ku ci def examen ba pare yaa ngi xal résultat ya waaye it mi ngi yaakaar yërmaande boroomam te loolu mooy jullit borom xam-xam yi dañ ni jullit dafa mel ni picc bopp ba mooy bëgg gëm bëgg yàlla laafu ndeyjoor wa mooy ragal yaakaar gëm yaakaar yàlla laafu càmmoñ ba mooy ragal gëm ragal yàlla fokk ñu jaamu yàlla ci bëgg ko ku bëggul yàlla yaa ngi mel ni picc moomul bopp ndax da nga dem déedéet fokk ñu yaakaar xéewalu yàlla soo yaakaarul ay xéewalam doo dem waaye soo ragalul mbugalam it doo dem loolu mooy alqaanit borom bi nag ni ndax ku mel nii dana yem ak ñi nga xam ne xamuñ am na ñoo xam ne waxtu woowu nga xam ni nit ñi ñi ngi taxaw seen kanamu boroom di jàng téere borom bi ci it bokk na ay nit ñu baax ñoo xam ne dañuy yeewu xaaju guddi waaye dañuy daal di jël seen kuru sub junni fas yéene seize mille yàlla tiif ah dix mille yaa gafuur ak yeneen i mbir yoo xam ne ñoo ko rabbal seen bopp mbokk loolu nekkul woon sunna yonent bi ak i saxaaba nekkul woon la yàlla taggee ahlul kitaab yi ñu jiitu woon wa min ahlil kitaabi ummatun qaa'ima yatluuna ayaati llahi ana allayli wa hum yasjuduun sunu borom nam taggee ahlul kitaab waa tawraat waa injil waa zabuur dañ daan yow xaaju guddi di jàng téere borom bi subhanahu wa taala dari ko ko sujud amma yor sa kurus tocc tocc tocc tocc loolee mbokku yonent bi alayhi salaam ak i sahaabam defu woon loolu am maanaam ñi yées ñooñu mooy ñi nga xam ne bàyyi nañ seeni nelaw sori seeni lal na am waaye ña nga ca peccukaay ya di tëb rek di dal di yëngu yaakaar naa yëngu loolu soriwuñu am na benn waaye nag nee na leen te waaye bu ngeen di yëngu it da ngeen bàyyi xel na dal leen mi ngi seen wet waaw dal leen di mooy armée aliya bu fa dem dal kon nag boo demee ci yëngu leen di yëngu yaa daal sa xel dal leen mi sa wet ala kulli xaal ngi gis contraire bi ñu ngi noonu benn mbokk ñëw ne fii alhamdulillah benn tarawih ñu ngi jóge woon fu sori okaam la jóge woon ñëw fii def tarawih yàlla dogal mu génn soriwul dara bu fekk benn ab jataay boo xam ne ña fa nekk ñoom it leneen dañuy jaamu yàlla waaye tëgg maag pecc maag jaxasoo góor ak jigéen gi kenn xamul nu mu mel mu ne man day dama waaru daa mel ne dama jóge àllaaxira tàbbi àdduna gis ngeen su ko defee kon ñu bàyyi xel mbokk loolu ne ñaari mbooloo yu safaano yooyu ñii ñooy xisbullah ñii ñooy xisbu cheytaan li ngi noonu mbokk guddi nekkul woon pour dajaloo góor ak jigéen di tëgg ka fecc ka nan sangara hal yastawi allazina yaalamuun wa allazina la yaalamuun du ñu yem kon nag fexeel bokk mi ñu allazina yaalamuun fexeel bokk ci ñi xam walla waay julit sa programme tey ku xëy yaa ngi lijjanti nu àdduna baaxe ci uti alal ak ay démarche boole ci yokk xam-xam sa wàllu diine diine ji ñépp a ko war a xam sa jabar dafa war a xam say doom dañoo war a xam góor góorlul fexe leen yóbbu ci jataay ya ñuy xamle su dee dafa loolu it dafa lay aada justement fexe ñu koy déglu yàlla subhanahu wa taala nee na ñi xam ak ñi xamul duñu mën a yem xam-xam boobee nag la ci priorité mooy la nga xam ne mooy téereb yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy priorité priorité ci xam-xam hal yastawi lazina yaalamuun wa lazina la yaalamuun sunu borom nee na borom xel yi nga xam ni ñooy wattu dëgg mu ulul albaab ñoom rek ñuy fàttaliku amaa ñeneen ñu dul ñoom boo leen waaree it amulu leen benn njëriñ léegi nag benn question benn waay moom dafay wax ni ah man daal fii moom dafa jafe jaamu yàlla sunu borom yàlla ne ay yéen jaam yi ragal leen seen borom te xam ne ñiy rafetal ci àdduna diine yi dinaa leen may lu rafet te loolu it nga la waay ndawal julit bàyyi ko xel la nga xam ne moo gën a màgg lu lay assuréel réussite ci àdduna fexeel rafetal sa jaamu borom lillazina ahsanu fi hadihi dunia ahsana suñ borom nee na man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin fala nuxiyannahu xayaatan tayiba képp koo xam ne day def lu baax góor nga wala jigéen danaa la dundal dund gu tey ci àdduna wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yacmaluun soo ñëwee àllaaxira ma fay la fa lu gën la nga doon jëfe loolu it la wax ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja su ko defee loolu mooy sunu garanti xam ne yàlla dañu fiy indi pour ñu jaamu ko ñu jàng jaamu googu sax ci jaamu googu incha allah yàlla subhanahu wa taala danañu may gàmmi àdduna gàmmi alaxira léegi nag man maa ngi dëkk ah bërëb sàngam mënuma faa jaamu yàlla sunu borom yàlla mu ne sama suuf si yaatu na muñal nga toxu foofu dem feneen moo tax mu ne innama yuwaffa sabiroon des na fay ñu muñ parce que mbokk toxu ak muñu koy waral waaye xoolal télévision bi da ngay dégg ñu ne la masalan dëkk bu mel ni Syrie temps yi passé enregistré nañu seen un million de personnes ba dawee Syrie dem bitim réew un million am maa ñi déplacé wu jóge ci région tel dem région tel loolu moom kenn mënu ko chiffré waaye lu ñuy ñoom lu ñuy rawale mooy seen sécurité am déet gars yi diine ak sécurité ban mooy priorité priorité diine da nga noonu priorité diine sa diine moo la war a jaral lu nekk nga deeyaale sa diine moo la war a gënal nga dund ci la nga xam ne shirke bokk ak loolu moo tax ba alhamdulillah boo nekkee cim réew ñu may la fa jàmm alhamdulilah jaamul yàlla waaye léeg-léeg nga nekk ci quartier boo xam ni yaa ngi ragal ne boo fi sa njaboot màggee ñii de dañu yàqu tuxul dem ci beneen kar quartier kër gii ma nekk kenn mënu fi jaamu yàlla tuxul dem ci beneen kër innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi xayri xisaab heure boo xamee ne mun nga bàyyi ca yàlla tax kër la quartier la réew la nga bàyyi ko ci yàlla tax sunu borom nee na mi ngi lay xaare la nga xam ne mooy muragaman kasira wa saa mi ngi lay xaare muccuwaay ak yombal ak yaatal comme nam ko defaloon saxaaba yi bañ jógee Makka dem dali Madina borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne noonu la koy defele ay jaamam na doon pay goo xam ne du am fenn fu mu ko limité yàlla na buur bi boole ñu min sabirin
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
sunu boroom subhanahu wa taala mu ne qul inni umirtu an abuda allaha muxlisi muxlisan lahu ddin yow yonent bi neel mbooloo mi man day dañ ma digal ma jaamu yàlla sellalal ko diineem ci wa umirtu li an akuna awwal al muslimin dañ ma digal it ma nekk njël beenu ñu koy jébbalul qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yawmin azim man day dama ragal suma moyee suma boroom mbugalum bis bu màgg qul illaha abudu muxlisan lahu diini nel man de yàlla lay jaamu sellalal ko ñeel ko sama diine ji faabudu ma shi'tum min duni yéen nag jaamu leen leneen lu leen neex gannaaw moom qul inna alxaasirina alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yowm alqiyaama neel ña perte dëgg-dëgg mooy ña perte seen bakkan ak seen njaboot yowm alqiyaama ala zalika huwa alxusraan almubin ala maa ngi leen di fàttali sunu mag ba abubakar jazairi nee na mooy aloo ñëpp na wëy mu ne ala zalika huwa alxusraanul mubin lii day mooy pexe mooy pertaange ba gën a bir ci pertaange lahum min fawqihim zulal dana leen ñeel ca seen kaw ay keri sawara wa min tax wa min min annaar zulalum min annaar dana leen fa ñeel ay keri sawara mooy ay couche ci sawara wa min taxtihim zulal dana leen ñeel ci seen suuf yeneen couche ci sawara zalika yuxawifu llahu bihi ibada lii day mooy la yàlla di tiitale la nga xam ne mooy ay jaamam yaa ibaadi fattaquun ay yéen samay jaam na ngeen ma ragal wallazina canabu taaxuuta an yaabuduha ña nga xam ne nag moytu nañ taaxuut te mooy seytaaneeg lépp luy woote ñu jaamu ko ci du yàlla an yaabuduha ñu moytu ko ba jaamuwuñ ko wa anaabu ila allah ñu daal di jëng jëm ca yàlla lahumul bushra ñii de dana leen ñeel ak mbég yow yonent bi fa bashir ibad bégaleel ma samay jaam allazina yastami'una alqawla ñi nga xam ne dañuy dégg kaddu ga fa yastabi dañuy déglu kaddu ga fa yattabi'una ahsana ñu daal di topp la nga xam ne moo ci gën a rafet ulaika allazina hadahum allah ñii day ñooy ñi nga xam ne yàlla jubal na leen wa ulaika hum ulul albaab ñii day ñooy borom xel yu ñor ya mooy xel yu mat ya mbokk diine ji sunu borom subhanahu wa taala dafa jël benn jaam ci jaamam sant ko lim ñu sant nen yow demal nga nekk royukaay ci jaam yi muy sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam borom bi ne ko dañ maa sant ma jaamu yàlla ee gaa yi xam leen ne yonent yàlla muhammad jaam la amul dara ci nguuru yàlla gi bañ koy ñaan wala di xettalikoo ci moom laa jaam la comme ñun yàlla sant na ko mu jaamu yàlla selal ko diineem bi mu ne dañ maa sant ma bokk ci ñiy jébbalu ay islaam lam santaane ci julli koor zakat ak makka dañ maa sant ma jiitu ca awalul muslimin la ko boroom xam-xam yi di fee mooy pare naa nekk benn julit ci kaw suuf le premier des musulmans pare naa ci loolu te it julit war na yegg ci yaqin boobu mooy wal iyaasu billah suñ demoon ba waa suuf yépp doon bokkaale da nga nangoo taxaw doon benn jaam boo xam ne da ngay wéetal sa borom te ibrahima mas na mel noonu inna ibrahima kaanu umma am na ay temps ci kaw suuf benn julit fi nekkoon muy ibrahima alayhi salaam détermination boobu it la mboolem julit war a am an akuna awwal al muslimin sunu borom subhanahu wa taala ne ko dolli ci ba tey man kat ragal naa su ma moyee sama borom mbugal mu tarming may xaar yeneen ci bay wax de ragal naa su ma moyee sama borom mbugal mu tarming may xaar gaa yi nee nag ñun shérif du lakk nga noonu yàgg ngeen ko dégg shérif du lakk ku sant sekk du lakk ku sant caam du lakk ku sant si du lakk ku sant mbàkke du lakk ku sant joxaa du lakk su ñuy wax la de mbokk bi nit fii nag la yem waaye buñ dee ba yowmal qiyaama amul kenn kuy moy sa borom lu dul mbugal mu tar mi ngi lay xaar ku la neex na la jur na nuux doon sa baay na ibrahima doon sa doom maadaama doon nga ko moy yàlla baayu ibrahima nga sawara doomu yeneen ci yàlla nuux ma nga sawara léegi nag sunu borom yàlla subhanahu wa taala ni man de yàlla lay jaamu duma ko bokkaaleeg dara mooy waxi yonente bi léegi nag yéen jaamu leen lu leen neex lu leen neex jaamu leen te it loolu mbokk benn carte blanche la bu ñu yàlla subhanahu wa taala may su neexoon yàlla kenn du ko moy waaye ñun nit ak jinni yàlla may nañu lu leen neex jaamu leen i'malu ma shi'tum lu leen neex rek def leen fa'budu ma shi'tum lu leen neex jaamu leen amma yeneen ci yàlla bi mu ne man yàlla lay jaamu duma ko bokkaaleeg dara borom bi nag ne ñi perte dëgg mooy ñi nga xam ni dañoo dem yowmal qiyaama perte seen bakkan perte seen bopp te mbokk ki perte dëgg mooy yéeféer bokk na lam jëkk a perte yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéeféer buñ ko dugalee ci bàmmeelam laaj ko laaj yañ koy war a laaj mu jeng ndax jaaruloon fi neex yàlla malaaka yi dañ koy ubbil aljanna ne ko gis nga kër yee ca àjjana yow la ko yàlla waajaloon pour boo jaamu woon fala lay dalal waaye nag ñàkk nga ko gis nga kër yee ca sawara mooy sa wàccuwaay bisu bis penc taxawee gaa yi nit ki mën na ñàkk lu gën a rëy àjjana waay laa wallah nga dem bisu penc ñàkk nga sa bopp ndax bu dee ñiñ tëj prison dañu dañ ñàkk liberté waaye boo demee ña ngay lekk ko naan ak football amma biir sawara ñi ngi la chaîné chaîne yoo xam ne kenn mënu ko melal roof la ci ay ruq di la mbugal ci sa kaw ak sa suuf mooy perte nga sa bopp waaye ana doom yaag njaboot ga ana garde corps ya bu doon président nga ana ar ña nga jiite woon yow milliardaire ba ak général ba ñoo ñépp ñàkk ngi leen te xaasiru anfusahum wa ahlihum yawm al qiyama suñu borom mu ne lii mooy pertanga bu biir amaa jullit ñi baax na ñoom ñu nga ànd ak seen njaboot ci biir aljanna ya alxaqna bihim zuriyatahum te loolu yàlla wax day ñu baaxoon seen njaboot baax dama leen di booleeg seen njaboot ci biir aljanna loolee kon di mbir boo xam ne ku ne war naa bàyyi xel ci loolu suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ne bu ñu duggee sawara dana leen ñeel ay kuusu sawara yu leen tiim ay kuusu sawara yu nekk seen suuf wallaay sawara doyoon na rek ñu teg la taal sawara sa kaw bal sawara doyoon na ñu taal sawara teg la ci kaw waaye sawara da leen di féete kaw féete leen suuf sun borom yàlla subhanahu wa taala mu ne lii lay xaare ña nga xamee ne nii dañoo jaarul woon fu ko neex waaye it lii lay tiitale samay jaam ay yéen samay jaam ragal leen ma te mbokk bu la dara tax a dem sawara bu mu doon ak ñàkk bu mu doon bëgg a falu bu mu doon dara loo xam ni war na laa yóbbu ba ngay dem sawara suñu borom mu ne ay yéen sama jam ragal leen ma loolu nag kon suñu ñu nekkee naan yàlla soxalul ba lu leen neexi def ah loolu seen waxi bopp rek la am naa la alquran wax mooy yaa ibadi fattaquun ay yéen samay jaam ragal leen ma ndax sawara mi ngi xaar képp koo xam ne jaarul fa ma neex ammaa nag beneen mbooloo ma mooy ña nga xam ni dañoo moytu taaxuut te taaxuut mooy lépp loo xam ni dañ cay jublu di ka jaamu ca du yàlla ka ka jiite mooy cheytaan ak mboole mi xërëm nga doon ay nit ak jinne ak lu mu mën a doon ña nga xam ne moytu nañ ko waaye dellu ci yàlla ci lu ñu bari comprendrewul ci seen diine dégg naa kilifa gu mag ci Dakar mu ne waa ñun ay jurit lañu waaye nag liñ donne woon suñuy maam muy xamb yeeg bu yi ñuy tuuroog ya ñuy wër ak yuy demee noonu loolu moom duñ ko bàyyi kooku comprendrewul lislaam bokk lislaam mooy laa ilaha illa allah da ngay jëkk a bàyyi lépp lu say maam nekkoon doog a ñëw jël lislaam gis ngeen ittana bu taaxuut moytu nañ bépp bokkaale waaye jéng jëm ci yàlla sunu borom mu ne ñii de lahumul bushra dana leen ñeel mbégte mbégte boobu yow yonent bi bégal leen lan la ñu yonent bi alayhi salaam wax nee na jurit bokk na lu koy bégal mbokk jurit ñu baax ñi di yow wax ci yow lu baax gis nit ñu baax ñi di wax ci yow lu baax loolu day nekk mbégte buy bégal jurit ñi yonent bi alayhi salaam nee na amul kenn koy faatu ñeenti ci ay dëkkandoom daal di koy seddal lu baax lu dul àjjana la jëm ñu ne ko ñett nag mu ne même ñett ñaar nag même ñaar bokk na ci loolu it ar ruya saaliha mooy gént gu rafet boo xam ne gént nga ko wala ñu géntal la ko gént yaa ngi dugg aljanna gént ñu ngi lay félicité ila axiri bokk na ci loolu heure boo duggee bàmmeel wala avant ngay dem bàmmeel heure buy sukuraat malaaka yi dañuy wàcc ci yow di la bégal ne la bul tiit bul ragal àddina moo lay xaar soo duggee bàmmeel naka noonu soo dekkee bis penc naka noonu heure boo duggee biir aljanna borom nit moo lay woo daal di lay bégal te mooy lu la neex defal kontaan naa ci yow loolu moom la suñu borom ne bashiril ibad bégalal ma samay jaam mooy yéen jaam suñu borom suñu borom ne mooy ñi nga xam ne dañuy déglu kàddu ga ba pare topp la ci gën a rafet te mbokk kàddug yàlla mooy alquranul karim yàlla waaye nañ jéem ñu nag suñu njaboot jéem a xool lan mooy kàddug yàlla subhanahu wa taala su dee arab ba matal déggug arabam su ko déggee dana am lu mu te mën a comprendre doonte ne loolu doyul fokk ñu tafsiral ko ko ama yow mi nga xam ne doo arab njaago nga wëral Casamance demal Sénégal oriental demal fu mu mën a doon ba dajee koo xam ne dégg na njaago ne yow daa di lay leeralal téereb yàlla bi sunu borom mu ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi li yubayyina lahum te loolu la yàlla wax day musuma yu ne benn yonent lu dul ci làmmiñu xeetam ngir mu leeralal leen ñu leeralal la ne la yàlla lii la wax ci alquran ci suratul baqara suratul ali imran maida ba baa naasi lii la yàlla digle lii la yàlla tere léegi nag nga dogu xool lay diglu yàlla def ko lay tere nga bàyyi ko suñu borom mu ne ñii ñooy borom xel yu mat gis ngeen ñii ñooy ñooy borom xel yu mat yi nga xam ne ñoom la suñu borom yàlla ne ak mbég ñi ngi leen di ñeel loolu it mu ñuy jàngal ne mbokk bokk na fi ay erreur yoo xam ne suñu maam yi def nañ ko mooy tiim jàkka joo xam ne buñ doon mille personnes ñëpp dégg arab matul ñett nga ñëw dóoral leen xutba arab lem say kii jiite leen ñu julli ñooñu nu ñuy baaxee loolu erreur mënu ko passé kon fokk ñu wax nit ñi lañu comprendre ngir buñ jógee mën a jëfee la nga xam ne moom lañ ca war a jëfee borom boobu nag subhanahu wa taala kon loolu la wax ni ñu mel nii day ñooy ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñu yàlla subhanahu wa taala jubal te ñii ñooy borom xel yu mat ya lii lit muy wane ne yàlla subhanahu wa taala mooy jubal ku ko neex waaye jubal bi day am sabab sabab bi mooy bu la bëggee jubal dana la déggloo ak kàddoom ba pare wërsëgal la nga jëfe ko yal na yàlla boole ñu ci ñum jubal
أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب
sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne afaman xaqa alayhi kalimatul azab mo ndax ki nga xam ne daa yey ci moom kàddug mbugal ga afa anta tunqizu man fi nnaar andax yow yaay kiy musal ka nekk ci biir sawara lakin alladina attaqaw rabbahum waaye ñi nga xam ne day dañoo ragal seen boroom lahum xurafum min fawqiha xurafum mabniya dana leen ñeel de ñoom ay taax ca kaw taax yooyee yeneeni taax yu ñu tabax tajri min taxtiha al anhaar muy daw ca suufu taax yooyee la nga xam ne mooy dex ya waada allahi laa yuxlifu allahu al miaad yàlla day mooy dige te yàlla du wuute ak i digam alam tara anna allaha anzala min alsamaai maa xanaa gisoo ne yàlla moo wàcce ndox jële ko asamaan fa salakahu yanaabi'a fi l ard mu tabbal ko la nga xam ne mooy ay yooni ndox ay source ci biir suuf si thumma yuxriju bihi zaran muxtalifan alwaanu gannaaw bu mu génne ca ndox moomee mbay moo xam ne dana wuute lool melokaanam ya thumma yahiiju gannaaw ba mbay ma lax fa taraahu musfarra nga gis ko mu doon lu ñu jonal mu doon lépp lu jaune thumma yaj'aluhu xataama gannaaw ba mu def ko lépp muy mboob inna fi dhalika la zikra li ulil albaab nekk na ci li day fàttali ñeel borom xel yu mat yi mi ngi noonu mbokku gis nañu sunu borom subhanahu wa taala mu ni am na ci jaamam yi ñoo xam ni kàddu mbugal yey na ci ñoom ba leen yàlla bindee la xam ne ñii ñooñu sawara la ñuy doon te mbokk ala yaalamu man xalaq ndax ki bind mun ta xam aha kay yow njaboot gi nga yor mën nga leen jugé professeur bi yor classe am mën na leen jugé waxumaa nag sunu borom subhanahu wa taala looloo tax day dalal xelu yonent bi ne ko am na ñoo xam ne mënoo ci dara sawara rek mooy seen wàccuwaay looloo tax ba mu nekkee Makka la tëraloon ne abi lëhëb sawara la jëm muy alquran du ñuy jàng yonent bi yàggaat na fa ak moom doog a gàddaay ba bi muy nekkee keroog Badr sax abu ba abu lëhëb mi ngi dund gaa yi bu abu lahab tuuboon rek loolu day war na ne alxuraan du dëgg am déet waaye sunu borom nee na am na ñoo xam ne kaddu mbugal dafa yey ci ñoom ndax ki tabbi sawara ba pare mën nga caa musal laa abadan loolu it moo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jëloon nañu sos ci moom nar a tàbbal sawara ca mënu ci dara abi lahab boobu ca la bokk bal abi taalib bi nga xam ne moo ko yar moo ko aar gannaaw bi ko yàlla yónni gis nañ ne mënu ko musal ci sawara lan la wax nee na day ñaan naa yàlla ba ñu woyee falal ko mbugalam ci sawara ca mooy ay dàll la ko ci yàlla wutal ci kaw sawara moom yuur ga day dëkk di bax ca mooy ki gën a woyeef mbugal ci biir sawara xoolal loolu su ko defee kon ñu gis ne loolu la ci man waaye mënu ko musal ci sawara am maa nag ñi nga xam ne dañu ragaloon seen baroom kan moo leen jur ate ya yéeféer ya agresseur ya ak fuñ mën a juddoo maadaama ñoom bañ jógee màgg nañu ragal nañ seen boroom suñ boroom nee na ñooñ de taax ya ma nga leen di xaar ca kaw taax yooyu yeneen i taax yu ñu tabax loo xam ne amagul ci kaw suuf nga mën a gis benn immeuble nga xool ci kawam gis beneen immeuble ci kaw ndax loolu gis ngeen ko laa wallahi waaye yàlla mi teg jant bi teg weer bi ndax bu diggee loolu des na ko weddi laa kenn du ko weddi loolu tax yonent bi alayhi salaam ne àjjana téeméeri daraja la téeméer nee na waa daraj yi nekk ci suuf dañuy gis ñi leen féete kaw comme ni ngeen di seeni biddiw yi gis ngeen comme ni ngeen di seeni biddiw yi biddiw yi ci kaw asamaan ñaata lañu ay milliards de milliards bu ko defee kër diw ma nga ne kër diw ma nga ne la ila axiri ba baa kër daw sil aala nga xam ne mooy première classe ba néeg yooyu nga fa nekk maa ngi dégg benn waay bu ñuy wax ci almaad yi kër gam tabax ah chambre à coucher ba rek cent cinquante mètres carrés la mooy li nit ñiy def kër moom la def moom chambre à coucher ak a neexoon mu jaamu yàlla ba dem chambre à coucher nekk ci biir aljanna yeneen bi alei salaam nee na nit ki dana nekk chambre à coucher ci aljanna di xool guddaayu sittuuna mille quatre vingt dix kilomètres nga koy xool ci biir néeg bi te nee na boo nekkee ci biir la ngay gis ci biti boo nekkee ci biti noonu ngay gis ci biir loolu mbokk yàlla na nga ko jagleel ñi ragal loolu seen boroom yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñu nag ni ngi noonu àjjana yi nga xam ne birigi or ak birigi xaalis moo ko tabax seen boroom nee na maa ko dégg ci samay digg du wuute laa yuxlifu llahu almiaad loolu moo tax gàllawaay nañ góorgóorlu léegi nag alquran rawatina saaru màkka yi li ëpp lu mu doon défendre mooy yàlla kenn la muhammad rasulullah alaxira am na ba tey am nañu ci sikk sa borom mu ne yéen ñi sikk sàkk ci alaxira xanaa gisoo na yàlla mooy wàcce ndox mu jóge kaw asamaan mu daal di koy bàyyi ay yoon ci biir suuf na doon ya ca feeñ ñu source yi nekk ci kaw wala ya nga xam ne ci suuf la boo gasoon fii léegi gis ngeen jàkk jam na benn pompe boo gasee léegi gis yoon yi yàlla bàyyi ci biir suuf loolu lépp nag suñu borom nee na maa ciy génne gàncax boo xam ne dafa wuute junni façon gàncax benn bokkut ak sa moroom balaa yàgg lépp lax balaa yàgg lépp def mboog te nekk poussière dellu ci suuf waaw gaa yi bu tawaatee nu muy def du lépp day génnaat loolu day wane na kon yéen doomu aadama yi nekk ci kaw suuf noonu ngeen mel te yéen liggéey ñu nekk ay liir di màgg di màgg ba toll seen baay commencé di lax di lax di lax di lax bu mujj ngeen dee su ngeen dee ñu suul leen ngeen def poussière yàlla mi génne poussière gàncax gale dekkalaat lépp nekkaat àll bu naat naka noonu bis dana ñëw ci bis yi mu génnewaat ñépp ñu nekkoon ci biir bàmmeel yi daal di leen di taxawal ci kanamam atte leen ci manduteem ne yeyoo ngërëm mu tabbaleen aljanna ne yeyoo mbugal mu tabbaleen sawara yal na yàlla jagleel ñu ngërëmam adduna ak alaxira boole ñu ca ñey tabbe aljanna bi gayri xisaab wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad ala kulli xaal bokk na ci laaj yi fi ñëwoon ci àllarba gee ñu tontuwuñ ko woon kii moom def ne dama aadowoo di woor altine ak alxames léegi nag yàlla dogal ma am benn xew léegi naka lay def ala kulli xaal yonente bi alei salaatu wasalaam nee na kii woor tatawwo moom moom boppam su ko defee bu dee xew boobu am na jëlal bis boobu nga xam ne danga ko waroon woor nga dog ko bokk na it ci ngëneel pour bañ a changer say bis yi nga doon woor nga jël beneen bis nga woor ko bokk na ci ku mel ni abdullah ibnu umar ibnu al-as gis nañu ne ba muy wax ak yonente bi alayhi salaam ci wàllu koor ba yonente bi ne ko del yem ci woor tey ëllëg nga dog amul lu gën loolu ba mu demee ba magee nu mu daan def comme dafa diggantoon nag yonente bi dafa war a woor genn wàllu jamono daf daan tegale léeg-léeg lu jege semaine woor ko noppalu semaine ngir noppalu loolu muy wane ne kon bis yi nga aada woon di ko woor nga am ci ngànt dara nekkul ci nga dog jël beneen bis woor ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw mbokk yi incha allah waaw bindul gis waaw bismillah waaw bismillah waaw mu ni am na ñuy wootee ak yonent ci Sénégal seen dalil mooy yàlla heure buy yónni yonent da koy yónni ci xeetam ñu ne looloo tax kon kay waroon nañ mboole mi làng yi ci kaw suuf yépp yàlla yónni fa yonent waaye mbokk loolu arab yi la yàlla doon tontu foofu dañ doon wax ne lii làmmiñu arab kese la sunu borom nag ne lan ngeen bëggoon su ma yónni woon ajam kon it du ngeen ko gëm kon la xaalu ajamiyin wa arabi te mooy la góor ga waxoon ca mbaam ma rek kenn mënul mucc yàlla mu ne su ma yónni woon beneen ku wax beneen lang yi du ngeen ko gëm loolu moo tax waaye ñoom suñ gëmee loolu ne yàlla nee na ci alquran du ma yónni yonent lu dul ci làmmiñu xeetam mais yàlla moom moo ne wa ma muhammadun ah wa déedéet ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa xaatama nabiyin moom mooy xaatama nabiyin di benn te it sunu borom mu ne wa ma arsalnaaka ila kaafatan li naas man ci nit ñëpp la laa la yónni muy benn loolu rek doyoon na ba pare mu yónni la ila kaafatan li naas yónni la te li nit ñëpp mooy nit ñëpp ci ñoom laa la yónni yow yaay mujjee la yonent allahuma la dul loolu xew suñu réew mu leen jaaxal am na lu grave loo xam ne nii sunu mag imam Aboubacar Sall lañ ko tudde mooy musiba bu wàcc ci parcelle loolu la koy tuddee. te mbokk fii ci unité 13 am na fa benn école boo xam ne ñoo ñuy tudde ahmadiya ñoo ko fa ubbi ahmadiya benn mbooloo la boo xam ne Mirza Ghulam Ahmad ca Ahmad ba ñoom ñoo ko ca dolli waaye tuddul woon noonu mi ngi tuddoon Mirza Ghulam Aga Khan anglais yi biñ ñëwee di coloniser àdduna bi rawatina Inde googu di ñu opposé leen ca la ñu créé seenu bu yonent muy gulaam boobu ñu dolli ci turam ahmad mu woote ne moom it yàllaa ko yónni mu ne moom mooy muhammad rasulullah ñu noonu mooy ahmad rasulullah yonent bi dafa ñëwoon ci turu ibrahim dafa indiwoon dëmm ibrahim beesaat moom mooy muhammad te mooy ruux yi noonu la ñuy wëlbatikoo ci loolu lañ gëm mu gëm ne yàlla anglais la ndax yàlla anglais lay wax ak moom gannaaw ba ne jihaad xewi na ak ay wax yoo xam ne dafa laaj lu bari ci ay temps pour développer ko diina joo xam ne bu demoon tey Indonésie dañ leen di xeex di leen rey rey bu bon a bon a bon allahuma nag anglais yi dañ ciy def ay milliards yu dul jeex centre bi gën a rëy bi ñu yor mi ngi Angleterre Gambie la ñu nekkoon ci fa susoon Sénégal benn bis Yaya Jammeh bokk na lu ñu koy sante paleem ba da caate tabax juma am benn mbokk ñëw jiite fi xutba wax musiba ahmadiye boobu buñ pare yaaya na ko waaw ñi ngay wax nga ne fu ñu nekk mu ne ko gambi mu ne gambi yaa gi ñu ne waaw mu ne nee leen dix jours laa leen may ñu jóge gambi dix jours amoon nañ fa ay école yu mag ay hôpital yu mag mu génne leen ba mu leen génnee nag fu gën a jege gambi sénégal ñu tasaaroo si bu sénégal oriental tasaaroo si fu bëri ci ci biir dëkk bi léegi nag fii centre bi gënoon a jege bi fi amoon mooy liberté 6 tey nag gis nañ ne parcelle ndaw ñi fi nekk yépp ñu ngi riir jëm ci diine samp nañ fi benn école fii ci parcelle fii ci wetu jàkk unité 13 ngal la waaye lépp lu ngeen di dégg ba dégg fa école ñuy wax ahmadiya sama mbokk bi saani bi jógee Kër Massar di ñëw fi nee na foofu seen dëkk fu la yit ci boori Ziguinchor am nañ fa benn école mooy madrasa ahmadiya loolu kéeféer la ñoo gën a bon chia yi téeméeri junni yoon ak chia yi bon bon bon ndax chia yi dañoo sànku rek waaye ci islam lañ bokk ñee nag islam diina la boo xam ne anglais yi ñoo ko créé de toute pièce loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax su ma dellu si waa tey ci liñ doon wax ay waay gëm leen ne suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy xaatama nabiyin keroog ba mu faatoo saxaaba ya daal di koy sang sang ko suul ko yowmal qiyaama lay dekki nee na ma yëpp génn sama xabru fa muy dajeeg jurim yowmal qiyaama mooy alxawdu la nga xam ne mooy dégg ba ko yàlla may keneen ku fi woote gannaawam ne yeneen ci yàlla la wala man maay muhammad maa dellu si loolee wax la duñ koy delloo wallahi waxuñu dëgg képp ku te dee ci yàlla yërëmu la yaa ngi dee ci kéefër képp ku koy weddiwul yaa ngi dee ci kéefër te loolu mooy danger bu rëy boo xam ne sénégalais ñu baax lañu li leen yàq mooy dañuy masla ba masla ci kéefër da ngay gis nit ñi woote loo xam ne kéeféer la ba pare ñu gis ay nit ñoo xam ne bokkuñu ca waaye ñu ne fàng ci biir cérémonie ba loolu musiba mun ta passé loolu mi ngi noonu mbokk yaakaar naa xanaa ñu mujj ci mbokk bi rek bismillah naam laa wallahi képp koo xam ne dafay wone ne am na beneen yonent bu ñëw gannaaw muhammad alayhi salaam kenn du julli ci gannaaw mi ngi noonu képp kuy wone ne gëm ne am na beneen yenent bu ñëw gannaaw muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku daa weddi alquran naankatu sàngara baa ko gën njaalookat baa ko gën lekkatu riba ba moo ko gën su dee ne moom gis nañu loolu ay bakkaar la amma ki wedd ki gëm ne am na beneen yonent kooku daay weddi alquran ca ko weddi alquran kenn du julli ci gannaawam yal na yàlla delloo ñu ila sirat almustaqim wan ñu dëgg wërsëgal ñu jaar ci wan ñu lépp luy ay caax wërsëgal ñu moytu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain